xoolal xam nga lan laa bëgg nu bàyyi. Mhm. gis nga kii ak ma maam Ndiaye sama waal yi nag marqué maam Cheikh Rafal ñoo gën a sonn ci showbiz bi ñoom la ñu gën a sonal gën leen a lëjal te xoolal ni xoolal ñoom lan gën a ñoo gën a sonn mais ñu ngi dem xoolal barki démb mhm. ku nekk ngi topp waali waali waali waali waali ma waxaat ko une bonne fois pour tout gis nga sénégalais bu ngeen xamoon waali xam ndeyam di ngeen bàyyi doomi jaambur ji waali ndeyam dafa sëyal baayam yu mag ñu njëkk ñi la sëy ba jur ko ci musul ne un musul ne an man mii di wax maa fekkee am na loo xam ne nit mënu ko toog wax ko ndax ki ba muy dugg ci coon xale bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw a ndaw la coon gis na lu ne di misien ku ne topp ko ki toog rek jàpp njaamuram uuf ay doomam ba yàlla dogal tey jii mu jël jëkkëram ji yóbbu ko ci sëgi yoo fii toog muuru ko teñu ko yàlla won ko ne ko liggéey ba nga doon liggéey tey ma récompensé la kinne jurut wayu jurut bandi jurut caga jurut malfaiteur jurut kenn kinne benn doomam sax laa man ne moo génn ci dëkk bi ci biir mbedd mi muy waali sax mhm. du kenn waaye ay doomam ak a mat ku mu ku gisu ay sami gën a tuuti boo ku ni surtout xam ne personnalité la am ak dignité mu jàngloo leen nag fan war a jànge xale yi waxtu du leen raw dañuy julli dañuy jàpp foo leen fekk ñu ngi muuru ndànk la ñuy wax ndànk la ñuy dox duñ togg ak sax mag ñi mhm. dafa am ñoo xam ne dañ leen a war a ba waali raw na leen buñ ko daboo ki wax waali tey ji bu toogoon a toog a toog a toog a toog a toog ba ne waali wayatut waalee ngi sant yàlla julli ci yoon yonent bu tedd bi bu subaa nu ne waalee nga fee bu ëllëgee nu ne waalee nga fee a ah, xam naa ne waalee guy gu dëng di ci moom la ñëpp jàngee yéeg caat sekk na dem seetaat boppam waykat la mhm. na dem seetaan boppam caat ku ko ko waxul waxul waxu ko dëgg su mm-hmm. yaboo nag ku ko seetaan boo génnee saaga ma wala nga wax ma lu a naqari waaye ku ciy nit tey gor tey dégg su nan su doo soo déggee li caat sekk wax war nga xam ne caat sekk mi li mu wax tegu ko fen mm-hmm. nit ki warul laa teral ba pare nga xëy suba naan ko ay géej jëkki yët nga ma may mm-hmm. waaw nit ki bu la bu bu bu boo sax di ko wayaan si xaalis bi man xolal mati nit may na ma barki démb ñeenti téeméer naan ma bariwul de ma ne ko may yi moo ma dàqal ay million ndax amoo goo dara li nga am yaa ngi ma koy may ne mm-hmm. deux moom nga yor kon tey boo yoroon ay million di nga ma ko may mm-hmm. bu lëg lekkee alum na ko gërëme coy léegi na jël oto be xaalis bi ko ko jotama yëpp ci àdduna dem delloo ko man bi ma ko seetaanee barke Ahmadou Bamba dama ne askanu géwél bu doon mbootaay ma démissionné hmm? barke maam Seex <laughs> ndax géwél yi defati nañ musiba. yàgg naa jooy de. mi ngi nii yàgg naa jooy ndax. waaye neewoon na fi may ma tuuti ma jooy dina jooyaat caat mi franchement man man man man caat dama ko estimer nit ku ma neex la. man mii dama ko ay wayam. jabaram di sama xarit. mais wax dëgg yàlla fi mu ne nii dama koo xeeb torop torop ci ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu doxalee. Mhm. àdduna euh, nit bu la defalee teraanga. même li Asiba wax rek même bu doon caabi kese la la jox. wala mu indi benn rétroviseur. billaay na la lii ci oto la bokk am danga war a jàpp ni parking la la may. Mhm. man de oto bi muy jooy bis bu ko ñëwoon. bu ñu ko joxoon ba mu dugal ko garage. ah dina ma arranger torop de. moo carcasse sax bu nu la ko joxe boo ko dagg boo. bu la joxee oto sax muy carcasse naa am kii rek. mati bu la joxee oto muy carcasse <laughs> moteur ba baaxul. boo ko DPC sax di nga ci am dara. yàgg naa ñaan oto de maa sax boobu ba léegi kenn mayagu ma ko. yàlla dina la ko may say mag rek mën nan la koo defal mati da ngaa gëm sa bopp rek toog ci sit yi di liggéey waaye say mag rek mën nan laa jëndal oto. ndeysaan borom yaay ju gore ji. Eh, Asiba. Mm-hmm. Eh, tey mbir mi xew ci diggante caat. ban mm-hmm. jàngat nga ci am tey boo boo jàkkaarloo woon ak Wally Seck di ko conseiller ci Thiat Seck lan nga koy wax. bu ko mayati. waaw Asiba loolu tax mu sadik. asafurlaa ma dikkee. <laughs> du ma la mayati parce que koo yàgg teral mu ñëw ci sa seen ñëpp dañ koy gis ci internet bi mm-hmm. journaliste dem def seen liggéey mm-hmm. saa yoo ñëwee Wally Seck yëgal la ci seen bi mm-hmm. nga woy ba sa xol sedd mu baatare la ay xaalis moom bu Wally ñu ngi lay kontaane nee na bonsoir maman yow lay nuyu moomoo influenceur Wally Ballago moomu faramaareen boobu maa ngi lay ziar bu wér a wér mu may la xaalis tegal la ci oto jox la caabi dana oto baa ngi ci biti magaare kooku loo koy def doo ko gërëm ak leneen loo xamante ne caat sekk waxuñu ko mm-hmm. parce que xam naa di regisanteek Wally Seck mm-hmm. voilà ilaa mu yó ñu yóbbante mm-hmm. ñu jox ko ko léegi moom comme Wally Seck oto bu yàqu la ko may ana xaalis bi mu ko mayoon na ko delloo mm. na remorqué oto bi yóbbu dafa waroon na remorqué oto bi yóbbu ko ca Wally ne ko karkaas nga ma may teel sab oto waaw cest à man li ma ci mën a ci li ma ci mën a wax rek mooy nit yi nañu reconnaissant euh, nañu reconnaissant un peu. Mhm. ci ci envers nit yi leen defal. Mhm. parce que ku yëkkati alalam may la ko. Mhm. kon tey jii euh, bu amee leneen war na la ko mën a defal. mais tey man mënuma concevoir Mati may ma benn yére. ma xëy naan ko xoolal yére bon bi ma may. te mm. pourtant sol naa yére ba moom sama xol sedd de mm-hmm. ma yére bi ni mu mel ni man na ko kii de mati de moom may yére bon bi par exemple te mm-hmm. yére bi ma koy jox dafa baax ma sol ko mm-hmm. sañse bi fu ma génn ñoo ne rafet na nit ñi nañuy reconnaissante même maagi sa lu mu wax même bu dee 1000 francs lañ la may yi di wax dafa metti bu la mayee 1000 francs jëlal te xam ne yéen nañ la lu ëpp 1000 francs mais yow magum jëmu moskalaf dem ba dikk xewat xewatoo ñu waali seek di la xewatoo ah indil plainte de ah man na ma indil plainte na ko indil plainte bu ko indilee plainte mu xam ne ci réew mi la dëkk sama munu maa wuy ji de barke maam Seex Rafa laa la indi bu ko giñal plainte barke Ahmadou Bamba laa la giñal magistrat yaa ngi gannaaw déggal li ah? ma ne nag xoolal a ah. ku le aj ku le ko man de <laughs> jàpp lan man waaye munu noo tëj borom rob yu ñuul yooyu tëj na ko indil plainte na ko indil plainte naa wax ma ne la caata dépôt ni tam ñu tëgge ko ñaari boor <laughs> moo taxaw génn wax ci waali man waali man waali kuy wax moo moom barke maam Seex Ibra Faal kuy wax ci waali hmm. seek bu ma ko déggee man dama koy defanteeg yow ba mu neex sama fii sama doom la. Hmm. sama doom la ma dama am envie plateau quatre personnes parce que euh, euh, kii laa bëgg mu fekk ma fii. Euh, Mara laa bëgg mu fekk ma fii ñëw taxaw fii sama. kooku maa ko jur moom. waaw dama am envie def plateau quatre personnes. xaa ma jékki-jékkal sama taxawaay Mara ñëw fekk si ma fii. Mhm. <laughs> xanaa xamoo ne tey jii kër gaa ngi wàcc waaw mati waali bu du toon nag sax ndayam. Mhm. maamam di jur ba ndayam. Mhm. Alaaji Diouf Ndiaye Koura. ku ko laal waali laal ma ndax ñooñu sama genn mhm. wàll sama lépp la gël tàppe mhm. kin tudda yaayi kinne mhm. Faat Diop jaaga taawu bu jigéen day Faal Diouf sama xaritu benn bakkan la bàyyiwun ma ba nëga ni su ma masaana feebar sax ci kër googu la ma sama papa di yóbbu nan bàyyi jaamur yi nan bàyyi waal yi nan ko bàyyi alalam la yor di ko maye waxoon naa ko fii keroog waali li muy def ci mi kan gis mu di ko fi def ku ci am sa xaalis yaa ngi ko nokk ci banque bi wala nga jël sa parking oo oto di jaay say oto waaye waali rek nga fi gis mu yëkkati ay oto di ko maye di dimbale nit ñi nooy ami visa di tukkeeg fu nekk xol bu rafet la yor ñoom xolal bu seen xol di métti nan dem kalaameeg yàlla wala nu dem seeti ñuy faj gastrique damaa defe ne dafa yore estomac buy métti moo tax <laughs> yàlla baax na ay Aïcha merci beaucoup oh ma dikkee tubaarikàlla la li technicien yaa man yàlla na la yàlla lafal cat jaay jaata na la yàlla dafal cat moo rafet plateau kay euh, Mara nuyoon. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, chers internautes di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di nuyu sama maam ji mama Aïcha di la nuyu sama yaay ji Asiba sama sœur di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp voilà. Euh, noo gisee diggante ki nga xamante ne moom mooy Wally sekk ak Thiat Seck problème mu ak ak ma man man dama yaakaar ni Sénégalais yi léegi amuñu ngor. am na loo xamante ne je pense que baadoola la. Hmm. Hmm. Wally Seck mës nga gis ku yéeg plateau seenam mu jox la micro. mennum Thiat Seck kese kese kese la koy defal. Hmm. yaay yéeg plateau mu yëkkati micro jox la. yow yaay ñaan si seen bi si saa si mu yëkkati jox la. bañalu ko dara Thiat Seck li mu am ci Wally Seck. du artiste bu ko am ci moom. Wally Seck dina am lu ko métti fi mu toog nag. dina am lu ko métti lool parce que am na loo xamante ne gis nga li ñuy naan li olof Njaay di naan lëg bu lekkee olof na ko gërëmee cooy mais c'est Wally Seck il n'est pas obligé mu may Thiat loolu du force Thiat lan liggéey. waay Wally liggéey. waay Thiat la hmm? nanam la bokkuñ dara. est-ce qu'il est obligé est moom Wally Seck il est obligé mu yëkkati oto may ko Thiat Seck. Mhm. Thiat moo ko jiitu su musique ah, su ko defee c'est parce que da koo neex. Ah? su ko defee parce que maa ngi xaar am nañ peut-être complicité wala am na cofeel ci moom te fàttewul démb ndax yàgg na taxaw ci ci ci ci plat moom si seenam Wally Seck yàgg na taxaw vogue ne Thiat Seck dama daan ñëw si seenam mu yëkkati ko jox ma moom way su ko neexoon du ko def mais est-ce jamono yooyu noonu mayoon na ko oto est-ce jamono yooyu noonu Wally Seck taxawoon na génn wax te xale la woon peut-être amuloon expérience mais mënoon na ko def mais Thiat Seck moom dafa xeblu boppam xeblu na njabootam xeblu na jabaram te tey ji ëllëg ku ko bëggoon na may dina xalaat jëf ji am na ñoo xamante nit da ngay gore nit da ngay gore bu dul woon sax affaire oto beeg yooyu noonu benn affaire bu ndaw bi mu ko bi mu ko accordeel muy nga yëkkati sa micro bi ngay woyee nga xamante ne àdduna ñoo la ci ñoo ñoo la ciy déglu nga koy jox sa moroom artiste muy woy comme yow donc je pense pas que ni moom il était obligé mu taxaw ci télé bi di wax loolu am na loo xamante ne baadoola te nit ñi léegi dañoo baadoola dañoo ñeme fecc kóllëre traité de baadoola je sais pas artistes yi nga xamante ne dañu am na ñoom non c'est franchement am na loo xamante ne baadoola la parce que Wally Seck moom xaalis bu muy liggéey moom moo ko moom dafa dimbali njabootam dimbali ne képp ku ko ku ko jege kenn mënu taxaw xas ko nit ki nag doo ko mere ci alalam ni mu def ba am ko moom moo ko xam bi muy xoslu di yéeg caat seek fi jàppale ko <laughs> non man ragaluma lool yow déggoo li ma la caat seek li mu def daa la wax yëfu baadoola la. mais moom du baadoola. man dama ne la. li ma la wax dafa leer mais lim la wax dafa leer yëfu baadoola la def mati yëfu baadoola te nit ñi dañ ko nawoon man sama téléphone li ma la wax ni yàgg na de bi may njëkk am téléphone ay son son Thiat Seck laa doon rengale sama sama téléphone woy bi muy woy ay baara mbay genre son yooyu noonu ñu ko doon ñu ko doon fecc ak sama booy mhm. tey dafa xeblu boppam. Mhm. ni da reconnaissant genre ça va pas dire que dootuma ko déglu parce que li muy woy woy na ko pare nit ñi bëgg nañ ko mais jikkoom parce que nit dañ ko naw ba am na ñoo xamante ne waruñu wax. Mhm. am na ñoo xamante ne waruñu wax ci àdduna parce que da ngay xeblu sa bopp. ñu jël exemple ngeen baal ma ñu retourné tuuti ci cadre. Mhm. Euh, coow ñoom Viviane. Mhm. Euh, nu mu tudd Tata nu mu tudd. Tata Abindour dafa xeblu boppam moom tamit. parce que gis nga soo nekkee artiste ba yenn moment yi mosoo génn wax bul wax. da ngay xeeblu sa bopp parce que gis nga am na wax yoo xam ne su xasee ba génn rek da nga yeblu sa bopp te da lay topp à vie. Mhm. te taa Aby Ndour dafa juum côté boobu. tey jii nii xoolal di xeeblu na boppam xeeblu na doomam ëllëg tey ji même bu dee Viviane nekkul ci yoon même bu dee dafa juum moom la gën a jox dëgg. Mhm. parce que dafa boole pat ak tekk. Mhm. te si olof ñaay naan soo nee pat rek tekk woon la yoon. ñoom ñëpp dañoo juum. franchement parlant te Thiat Seck c'est bien que nag mu génn wax ni que moo ngi jéggalu genre yooyu parce que. xam nga rek waaye bu ndox tuuroo an baax a des. nan yi di wax li ñuy wax ba pare di jéggalu. dañuy jéggalu maa Aïcha. loolu est-ce que du sénégalais yi léegi habitude boobu lañ am kenn ku ci nekk da ngay génn wax lu la saf. Mhm. wax ba sa ñeex saf yàpp nga génn nga ne maa ngi jéggalu parce que dama juum dañ ma liggéey. te gis nga boo tontoo sax nga gis ñu woo la téléphone naan la artiste bu toll ni yow ni nga mel ci réew mi ak mm. say fans lu tax ngay tontu da ngay patt bi Youssou Ndour maye kii ko nii ñun tolluwuñu ak Youssou Ndour niveau man de barke Ahmadou Bamba laa la ku ma wax ci internet bi midi lu ma naqari barke Ahmadou Bamba une heure moins cinq doo añ doo reer doo nu mu mati ñëpp a mën a wax wax ju bon ñëpp man damaa jàng saaga ci bambara jàng ko ci tukkulóor jàng ko ci saraxule jàng ko barke Ahmadou Bamba ku dugg ci man dinga nga sant ci ko wala nga récité mm. parce que li ma xam bari na nawet bi fi la ma fekk boo koo foog ne xamula rek xoolal xam na la baraag yeeg seng yeeg nawetu daaw bi fi ma fekk mm-hmm. ndakaaru nag juddoo ma fi yaroo ma fi mm-hmm. damaa def sama sama laaxu tojtal mm-hmm. nu amal ma njur neeg soow ma dikk sama baay nag la fekk si woon mhm. waaye defe naa ne mel na ne firaa rattaxe sama ndong mhm. waaw ku ma wax lu ma na ma delloo la ko ba mu neex baadoola lan ñàkk nan kersa dof nan am nan problème man dama yaakaar ne euh, danoo def ci biir Lac de Guiers loo xam ne daa dem ndax seetlu ñiy naan kireen ñëpp amuñu problème ñiy naan ti robinet yi <laughs> wóor na jëmmi Serigne Touba calcaire baa ngi leen di bëgg a rey nu jekki-jekki naa ah damaa xool mhm. da ngay xool ñu dugg ci gaal yi dem mhm. nga gis ku yóbbu ma ko jabar ne wax ne waxati daw man ñàkk gëm yàlla laa ko teg wala ñàkk doylu laa ko teg walla munu aman ah, daal waaru naa ah man de sama doom nee naa ko bu fekkee ne maa tax ngay dem ci gaal yi pour te pour te teral ma bu yeboo nga toog ndax maa ngi sant yàlla man su ma xëyee am ñaar fukk je suis pénal yàlla gémmiñ ko mu xar sànni ci wërsëg mayu lay million mayu la ci oto yi mayu la ci kër yi adoo ah, muñ da nga xam lan la di riñteel ëllëg mm. te dund gu sotteegu lu ne xaj na ci nit ki mën naa encaissé wërsëgam tey sax bu subaa mu faatu ñu déje ko ko ah est-ce que que naan ki ren tamit. ah damaa yaakaar ne ñi naan ci Lac de Guiers bi day ñi naan ci robinet yi ñëpp a loolu ndax boo ko ñu luggee di ko togg sax bu baxee yëf ya toj. <laughs> Madické Madické ban ndox ngay naan dimbali ma ci loolu. kaay naan lay euh, naan kaay mm-hmm. ah? kaay naan mooy filtre yi filtre yi. ah filtre ci mbedd kaay naan waaw kaay naan kaay naan bi sax mooy loolu man daal mi ngi noonu man daal Sénégal wóolatuma fi dara ndoxu robinet rek ndoxu robinet la rek. benn la c'est la même chose ndox bu baax bi dina ñëw fii ci plateau bi waaw waaw dëgg du neex mm. euh, ñu dem si troisième point bi mm-hmm. waxtaanee Mara da ñëw ëmp ci Mame Ndiaye Savon balaa ngay dem parce que plateau quatre personnes laa woote tey oh ay waay sama doom ji ñëwal waaw maa ay sa yow lañ suwit se nga abandonné ñu noonu euh, Mara euh, li may faral di wax très souvent mm-hmm. que gis nga soo nekkee si réseaux sociaux. Mhm. da ngay moytu tuuti parfois di étaler sa vie. Mhm. lu yëngu nga génn lu yëngu nga génn bu yàggee da ngay soof. Mhm. gis nga euh, Sénégal dafa la mën a yëkkati ba nga yëg ba ci kaw. mu wàccee la ba ci suuf. su ma sañoon nag cadre Mame Ndiaye Savon ak euh, euh, Mamy Cobra nit ñi dinañ ci génn parce que comme que ñoom ñaar xaritoo nañ ba bare wax boobu nañ ci génn benn deuxièmement nit ñi Mame Ndiaye Savon déjà nit ñi topp ñu ko bu yàgg parce que loolu je pense que ak à à plus forte raison que sa sa vie nga koy étaler fi ngay jëm nit ñi xam nañ ko li ngay mm-hmm. jëf nit xam nañ ko li ngay jox sa jëkkër nit ñi xam nañ ko sa doom su lekkee nit ñi xam nañ ko li ngay jaay par jour nit ñi xam nañ ko mm-hmm. donc c'est c'est très normal que yenn affaires yi dal c'est très normal mais nag mosut a taxaw di wax lii laay jaay ak lii laay jox sama jëkkër non maman sa lool maam Ndiaye sa bopp nag kenn wax ne du ko def non non toogul ne danaan maay jaay ke jaayu leen loolu lépp ay ay kii la rek ay mbalag la ay mbalag la xoolal moomoo ok nu mu tuddati moom yaay maam Ndiaye Savon la bëggul ku laal maam Ndiaye non non Mara. laal bëgguma ku ko wax dara xam nga tax bëgguma ku ko wax dara. am na ci plein droit. dëgg la moom Aïcha c'est vrai que. am na ci plein droit. mais yow yow yaayam nga da nga koy wax benn côté dëgg gis nga. Euh, genre mais influenceur la tiktokeuse la. c'est waaw bu ko neexee génn ne lii laa am lii laa. mais dafa sonn dafa galéré ba pat ba am li mu am. de est-ce que xamu leen ndax da koy génne di ko wax pour ñi amutoon jom jéem a am jom jéem a def noonu ci moom. ah loolu rek la digganteem ak mami Cobra ay gaayin lanu yaay mami Cobra maam Ndiaye rek la bëgg te barke Serigne Touba Mbacke laa la giñal maam Ndiaye dina lakk ñu bare bare bare maara maam Ndiaye borom baax la de. li muy def moom la ko concerné moom la mu intéressé. mais waroon ko cee top amul am na ci droit. lu tax topp nu lu tax duñ topp Alsaan Bay. nit mais parce que voilà la moo non du benn. ah benn la kat Assane Mbaye événement ba événement nga koy gis mu génn. Mhm. joxe li muy joxe. déet déet site internet yi lay woo. déet dëgg ma expliqué la dëgg ma expliqué la site internet e-, la plupart c'est événement xam naa ko xam naa ñu ko jege bu baax du woo site internet yi. waaw nii dañuy ñëw waa dëgg ma ko génne ci benn la ma Mame Ndiaye Savon moom day taal live am di expliqué moom mën na toog presque toute une journée. Mhm. live am li xew H24 ci place am na nga koy xam. Mhm. waxeewu ma parce que li muy def baaxul wala maanaam moytu bi laay wax li ko daal xam naa li nga wax moytu bi wax xam naa leen li nga wax mais Alassane Mbaye ni muy def noonu génne ay junni teg ko ci ay kii ay liaas di ko may di yóbbu ni mais lu ne la ciy dégg loolu par at la koy def ma su ko defee balaa mu koy defaat déglu ma rek xam naa loolu waaye léeg-léeg dana toog këram di mbeeraay di tëral nit ni nan waxante dëgg est-ce que loolu live nañ ko Alassane Mbaye la mu yor maam Ndiaye yorut loolu Alassane Mbaye bokkul Alassane Mbaye waykat la nëbbatu nëbbatu lu la mayu du la ko xañ mm-hmm. alsaan mbay waykat la bokkunu maara déglu ma bu baax maay wax ak yow sax xaama expliqué gis na maam Ndiaye Savon jigéen te day sëy ay moromam ñoo ngi gis na ñi muy topp ñi ñëpp xaj bi ñëpp kenn amu si jëkkër te gis nga borom caq day moytu xeex ak borom baatu neen maam Ndiaye Savon li mu am ñu ma ko yéen mais ñooñu dafa yàgg ànd ak ñoom moo tax mu di leen topp ba léegi non non amuñu jëkkër waaye du leen bàyyi gis na du lu ñu la wax faa nga génn tontu bu yàggee da ngay créer say bopp ay noon pour rien di tout. maam Ndiaye nag so amul preuve du tontu. mais dafa metti nag wax dëgg fa yàlla ñu toog di la live di la saagay ndey ak di naan le dëmm nga ak lu ne ñu di la ko wax moo yëy génn nag. maara man ku ma ko defoon nag wax dëgg fa yàlla ma génn wax la njaajaan njaay barke Serigne Touba Mbacke kon dinaa dëbb dëkk bi ba mel ni mboroxe. <laughs> d'accord maa macha moom protectrice la Mara tey ak sa yaay moom doo leen ma. da cee am droit.